yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñeent fukkeelu njàngale mi ak ñett ndamu yéesu jooli na ci moom nanu bamtu nettali yi weesu benn ba Adama ak Awa bàkkaaree ba tey jii kan moo yilif àddina seytaane ñaar lan moo mënoon a fay bàkkaari Ibrahima Isaaxa buur Daawuda ak waa Israyil deretu mala mu amul benn sikk ak seen ngëm ci sët bi yàlla dige ñett kan la yonent yàlla yi wax ne dina ñëw te dina musal nit ñi ci seeni bàkkaar sët bi yàlla dige muy almasi bi ñeent lan la yéesu bëgg a wax ba mu ne war nañu judduwaat war nañu judduwaat ci sunu xel jaare ko ci xel mu sell mi dund gu bees googu mu ngi jóge ci dégg ak xam ak gëm kàddu yàlla bu nit ki judduwaatee yàlla moo koy soppi ba mu xam ko am cofeel ci moom te déggal ko su ko dinañu fasaat kolere ak yàlla. juróom lan la yéesu bëgg a wax bi mu ne képp ku gëm dina am dund gu dul jeex. yéesu bëgg naa wax ne sunu yaram dina dee waaye sunu xel dina dund ak yàlla ba faaw. juróom benn du tax ay nit sopp lëndëm gi bàyyi leer gi ndaxte seen yoonu bopp ak seeni bëgg-bëgg bopp lañu sopp mbind mu sell mi nee na ci Macë saar fukk ak juróom-ñaar aaya benn ba aaya juróom-ñeent juróom benni fan gannaaw gi yéesu àndoon na ak piyeer saak ak yowaana rakkam yóbbu leen fu wet ci tund wu kawe lool mu soppiku fa seen kanam xar kanamam di melax nibjant te ay yéreem weex ni leer naka noonu ñu gis yeneen ti yàlla musa ak ilias di waxtaan ak yéesu piyeer nag daal wax yéesu ne ko sang bi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 nettali bi mu ngi aju ci ni ndamu yeesu jolle ci moom benn bés yéesu laajoon ay taalibeem nit ñi kan lañu xalaat ne moom la ñu tontu ko ay nit nee nañu yow yaay yaxya noonu yeesu laaj leen yéen kan ngeen xalaat ne moom la Pierre ne ko yow yaay almasi bi Yeesu wax Pierre ne yàlla moo ko ko woon fa la Yeesu tàmbalee di jàngal ay taalibeem fi mu war a jaar fépp dina dem Yerusalem am fa metit te sëriñ yi ak xutbakat yi dinañu ko weddi dinañu ko rey waaye dina dekki bu amee ñetti fan lépp lu yonent waxoon ci moom dina doon dëgg ñu teg ci juróom benn fan Yeesu yóbbu Pierre saak ak yowaana ci kaw tund wu kawe jëmmu yéesu soppiku ci seen kanam kanam ga mel ni luy tàkk yére ya di ray-ray weex tàll jekki-jekki yonent yàlla musa ak iliyaas taxaw ci wetu yeesu di wax ak moom pierre ne yéesu borom bi nañu defal ñetti mbaar fii ngir ku nekk ci yéen noonu aw niir muur leen te yàlla wax kii mooy sama doom ji ma dige déglu leen ko taalibe yi daanu ci suuf ndax tiitaange yéesu teg leen loxoom ne leen jóg leen bu leen tiit mu ne leen bu ñu wax kenn li xew ba keraa muy dee ba dekki gannaaw gi yéesu wax na ay taalibeem ne dafa war a ñibbi ci baayam mu ne leen dina leen fa waajal fu ñu dëkk mu dig leen ne dina dellu si bés ngir jël si leen dig boobu képp ku gëm ci nga bokk Thomas di kenn ci taalibe Yeesu ne ko borom bi xamuñu fan nga jëm kon naka lañuy xamee yoon wi yéesu ne ko man maay yoon wi dëgg gi ak dund gi kenn du ñëw ci baay bi te jaarul ci man yéesu digge na ne gannaaw bu demee yàlla baay bi dina yónni ab dimbalikat mu di xel mu sell mi xel mu sell mi mooy xelu dëgg giy dugg ci xolu ñi gëm te di leen wommat yeesu wax na lu bare ci mbiram benn yoon nee na man may sàmm bu baax bi sàmm bu baax bi day joxe bakkanam ngir ay xaram kenn du ko jëlee ci man maa koy joxe ci sama coobare bopp nit ñi di laaj ba tey yéesu ndax mooy almasi bi mu ne leen wax naa leen ko ba noppi te won naa leen ay kéemaan waaye gëmuleen leen ndaxte bokk leen ci samay xar samay xar dinañu dégg sama baat xam naa leen te ñu ngi may topp keroog yéesu taxaw wax ca kaw ne ku mar na ci man ku gëm na naan ndaxte mbind mi nee na ndox mu bare muy dundale dina xele ci dënam mu ngi doon wax ci mbirum xel mu sell mi ñëw gannaaw bu yéesu deewee ba dekki xel mu sell mi dina dund ci biir nit ñi gëm am ñu gëm ne yéesu mooy almasi bi waaye ñenn ñi gëmuñu woon ñu ne yéesu du almasi bi ndaxte galile la dëkk te almasi bi betleyem la war a juddoo xamuñu woon ne yeesu betleyem la juddoo beneen yoon itam yéesu ne leen man maay leeru àddina si ku ma topp doo dox ci lëndëm waaye dinga am leeru dund ay pharisiens yu bare mere woon nañu yéesu ci li mu doon wax waaye amoon na ay yawut yu gëmoon yéesu yéesu ne leen bu ngeen saxee ci li wax nekk ngeen samay taalibe ci lu wóor te it di ngeen xam dëgg gi te dëgg gi dina leen goreel fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn kan la taalibe yi gëmoon ne mooy yéesu almasi bi yàlla dige ñaar kan moo ko won yàlla ñett lan la yeesu ne dina ko dali wax na ne dina am métit te farisiyen yi ak xutbakat yi dinañ ko fitnaal dinañu ko rey waaye dina dekki ci ñetteelu fan wi ñeent lan moo dal yéesu ca tund wa fala yàlla mi nekk ci moom tàmbalee mel ni luy tàkkal yaramam wa juróom musaa ma bu yàgg naka la mën a feeñee ca tund wa ak yéesu yaram musaa lañu suul waaye xelam mu ngi ca yàlla juróom benn lan la yàlla wax ci mbirum yeesu nee na kii mooy sama doom ji ma dige déglu leen ko juróom ñaar bi yeesu waxee ci mbirum demam fan la doon wax ñibbeem ca yàlla la doon wax juróom ñett kan la yeesu wax ay taalibeem ne yàlla dina ko yónni yéesu nee na yàlla dina yónni xel mu sell mi ngir mu nekk ci seen xol juróom-ñeent lu yéesu wax ci mbirum dëgg gi nee na dëgg gi dina leen goreel fukk kan la Yeesu wax ne moom la nee na mooy almasi bi doomu yàlla ji nee na mooy yoon wi dëgg gi ak dund gi nee na mooy sàmm bu baax bi joxe bakkanam ngir ay xaram nee na itam mooy leeru àddina si fukk benn kan ngeen yaakaar ne mooy yéesu mooy sët bi yàlla dige almasi bi doomu yàlla ji yan melokaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi te naka lañ ci feeñe yàlla xam na lépp yéesu xamoon na li koy dali te wax na ko nit ñi ngir ñu xam ko gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yéesu nee na mooy sàmm bu baax bi te dina joxe bakkanam ngir ay xaram yéesu xamoon na ne dina am metit te dina dee waaye bëgg noo musal tax na jéemu koo moytu yéesu nee na yàlla dina yónni xel mu sell mi ngir mu wommat nit ñi gëm yàlla mooy borom doole yàlla def na ndamu yéesu jolli def na itam musa ak iliyas te fekk ba ñu deewee muy ay téeméeri at feeñ ci wetu yéesu yàlla lu mu digee def ko yàlla digge na ne dina yónni ki mu digee muy almasi bi yeesu nee na moom mooy almasi bi ki yàlla dige beneen yoon dinañ waxtaan ci ni yeesu dekkilee lasaar